salaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora bi salaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñi seetaan sunu TV eh, kàddu bi bàyyeekoo ko naa leen chaque jour fii ci eh, Koungheul Gare eh, depuis le 3 ñu ngi nekk Koungheul ku ne xam na ne élection la ñu nekk nekk ci campagne électorale présidentielle tey nag ñu ngi seet si benn xale boo xamante ne jeune politicien la nekk fii ci Koungheul Gare muy wuyoo su Sekk su nag euh, tey dañ ko daal di ñëw seet këram mu dalal ñu nag euh, ci biir këram ba tey rek dañ koy daal di euh, tàll suñu micro mu nuyu askan bi nuyu mbokki diaspora bi nuyu àdduna bi Xewsu ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay maa ngi nuyu ñëpp di nuyu département Koungheul di nuyu àdduna bi yëpp képp koo xam ne gis nga moo xam ma maa ngi lay nuyu di la delloowaat kàddu gi. d'accord gannaaw bi ngeen nuyoo ba noppi euh, Kawsu ñu ngi lay euh, jox delluwaat micro bi di la laaj kan mooy kay Kawsu Seck. waaw Kawsu Seck te benn taalibe bi Touba la ñàkk solo lool waaye nag dëkk Koungheul dëkk Ribo Escale Taïf Cekkeen dëkk juddoo Ribo Escale màggee Koungheul nekk fii ci Koungheul. di doomu alaaji Njaaba Sekk alaaji Ousmane euh, di yëngu nag ci activité politique waaw di daam suñ doole gëm suñ bopp xaw su ban année nga commencé politique waaw politique nag euh, moom mën naa wax ne bi ma ci commencé fës mais bi mu fi nekkee diiru li mu fi nekk 81 mu jiite Ribo Escale ba 2014 Yaaya Sow ñëw jiite Ribo mu kon ne nekk conseil économique social ba 2016 yàlla dogal mu décédé ñun nag ci lañ doog a ne comme bi nekkatu fi te moo fi nekkoon te mu am ay nit baasam nekk fi ba tey ñu bëgg ñu ñun doomam yi ma ne naa jóg nag jéem a jël relève bi nekk ca la sama papa nekkoon mën naa wax ne daal 2016 bi ci laa gën a fës ci bi nga xamee ne maa fi nekkoon responsable mouvement soutien Karim Wade départemental bi loolu passé législatif yi passé ma nekkoon candidat ci mbooloom Wade mi Farba Senghor taboon ma quoi yaakaar naa ne keroog bi PM di ñëw Koungheul laa def sama ral euh, laa euh, def meeting de ralliement à travers de Socé Diop John dem jàppale ji benn bokk yaakaar depuis boobu ba léegi nag maa ngi ci biir APR ànd ak Macky Sall di ko jàppale bëgg mu am deuxième mandat nekk ci ginnaaw Fanta Sall. d' accord %e euh, buñ jógee ci loolu nga ne %e keroog bi fi PM ñëwee nga def sa meeting de :fra pour dem ànd ak %e Socé Diop Dione directrice :fra construction et habitat buñ jógee ci loolu nag dañuy daal di dellusiwaat yow xale nga yaakaar naa ne politique :fra xale baax na mag baax na mais :fra yan rendement nga nga gis ci politique bi nga xamante ne yaa ngi koy dund fii ci Koungheul njëriñ nga ci gis waaw mën naa wax ne pour ci wàllu njëriñ bu dee njëriñ la bu jëm si ci sama côté daanaka amul njëriñ noonu uh, du koom-koom boo xam ne man lu ma ci am la politique dafa nekk loo xam ne amour la ci man ma gëm ko bëggu ko muy loo xam ne mën naa wax ne doonu la ko te doonu day dëgër moo ma ci dugal ma nekk ci mais du question sax loo xam ne rendement buy ñëw ci man la d'accord ba tey nga ne politique bi gisoo ci benn rendement la moo la ci bàyyi ba léegi comme amoo ci gisoo ci benn rendement lu la ci bàyyi. waaw dama di ndaw tàmbalee politique bëgg naa ci dara nag mais comme dañuy soog a tàmbali mënoo xëy rek mu neex da ngay commencer lu ne mën na la ci fekk daal. Euh, ba nga jógee ci Socé Diop ci euh, kan nga dem. Euh, man nag bi ma jógee ci Socé Diop ci Fanta Sall laa ñëw. moom Fanta Sall mooy kan kan mooy Fanta. Euh, Fanta Sall mooy xale bu yaru xale bu gëm Koungheul di moo gën a nekk xale ci responsable yi nekk Koungheul gën ci bëgg Macky Sall aussi di liggéeyal Macky sàll suba ak ngoon guddi ak bëccëg lan mooy amaaseloo Macky Sall ci ay tànkam lay xëy di ci gont loolu laa xool ci moom moo tax mu doy ma mu seet si ma ma ànd ak moom. merci beaucoup yéen a ngi euh, seetaan ba tey euh, sunu TV euh, ba tey ñu ngi toog ak xale bi nga xamante ne fii lañ ko fekk si ci biir këram waaye nag mu ngi dëkk xaw su Sekk lay wuyo ba tey rek dund na politique ndax papaam dafa politique ba wàcc liggéey mu daal di jël relève bi pour jàppale ki nga xamante ne moom mooy honorable député Fanta Sall honorable député Fanta Sall moom mooy député Koungheul Ah, mais buñ jógee ci euh, honorable yeneen leader yi lan moo tax nga jékki-jékki ni honorable te yeneen leader yi nekk fi waaw yeneen leader yi xam nga tudd naa la ne la àndoon naa Socé Diop ci législatif yi yeneen leader yi nag ku mel ni Seydou sama papa la peut-être que ne miinantewuñ nag Assane jóob sama papa la ba tey it miinante wuñ Mayacine Camara sama grand frère la parce Alaaji Usmaan la defoon papa da ñëw fii suñu saal bi di ko laaj xalaatam ci li nga xam ne ci la nekk tey mais nag miinantiwuma ak moom te yàlla moo dogalul ñoo ñëpp ma tudd la pour ma ànd ak ñoom ci politique mais ñoom ñëpp bëgg nañ dëkk bi mais nag tey fii may wax ak yow ki ma gis ne moom laa mooy moom lay àndal ci politique mooy Fanta Sall euh, nit ku nekk sooy def dara na fekk nga gëm ko parce que loo gëmul doo ko mën a def te leader da nga koy bëgg gëm ko mooy tax nga mën koo topp te jamono jii ñu toll Fanta Sall moom laa gëm moo ma doy ma mën a nekk ci ginnaaw à loolu période bi ñu toll gisuma kenn sama kanam quoi. d'accord dañuy ñëwaat ba tey rek ci wàllu politique la ñu nekk dañuy xool yow da nga ne Ribo nga dëkk te ñu gis ne Yaya Sow moo nekk maire Ribo est-ce que bés dina ñëw nga war a mën a soxla nag Ribo en tant que doomu Ribo Escale. bien sûr euh, Ribo Escale laa dëkk Taïf Cekkeen laa dëkk Taïf mooy village bi ëpp ci Ribo Escale ci commune de Ribo parce que fii may wax ak ñëw lu mat sept cent waa danañ fa woote ci ñetti bureau de vote ya fa nekk bon mooy dëkk bi ëpp foofu ci bureau de vote yi te pourquoi pas man bis du ñëw ma soxla Ribo Escale inga kay sam papa vingt ans la jiite Ribo Escale te Olof Njaay day faral di wax ne doomi ñay bu ko ñaanal rëy ñaanal ko mu gudd fan la nekkoon ca moom te dañ ne maanaam doomu jaan lum tuuti tuuti su la màttee nga xam ne jaan matt na la bon la nekkoon ci ala Usmaan lu weex weex mu ngi ci ñun euh, bis dina ñëw ma bëgg Riba Escale bien sûr su ma yàlla mayee fan mu ngi ci sama xel te looloo ma waral may politique fas yéene jaar fi sama papa jaaroon rek lu ma ca am ma xam ne jaar fi sa baay jaaroon dara nekku ca waaw loolu daal gëm naa ko ko te yaakaar naa ne dina mos a am. d'accord bu ñu jógee ci loolu gis nañ ne leader yi nga xam ne ñoo nekk Koungheul xawuñu juboo dañ def ñaari clan yow loo ñuy jox ci loolu ci ñàkk juboo boobu euh, di nag le président Macky Sall ne ñoom dañoo nekk ci dañoo nekk benn or ko ñu bu président ñëwee ñu booloo nekk benn bu demee ñu dellu ca lañ nekkoon loolu triche la wala. waaw li ma ci xam mooy leader yi jubóowuñu parce que ay tendance la ko mais nag tendance yàgg na ci parti bu mag parti dëgg-dëgg Macky Sall sax tey li mu bëgg mooy parti am am gis nga kër goo gis ñiy boddante kër ga dafa rëy mais bu tuutee loolu du ci am parti dëgg-dëgg day am tendance moo waral ñiy jaar nii ñiy jaar na li fekkoonte ne parti bi rëyut amul tendance duñ ko xëccoo dafa am njëriñ est-ce que opposition bi gis nga ci tendance kenn du ci tendance Macky Sall moo fi nekk looloo waral tendance bi am ci tey ñii jaar fii ñii jaar fa mais comme ñoom ñëpp Macky Sall la ñuy liggéeyal rek bon ñoom ñëpp ci benn ndab bi la ñuy yàq incha allah bon mën naa wax ne seen tendance boobu maanaam njëriñu Macky Sall la ko parce que kenn ku ci nekk doo ci nangoo des ginnaaw bon li am solo mooy tendance dëgg fi muy amee problème mooy ñi dem ba élection locale ku ne di xëccal sa bopp boobaa dañu naan lii intérêt personnel la mais tey Macky Sall moo soxla te ñoom ñëpp kii jaar na fii kii jaar fële mais kenn ku ne li nga rooti ci ndabal Macky la nga ko bëgg a sotti bon loolu man daal gisuma ci ne am na problème bu bëri noonu quoi. d'accord ba tey damay delluwaat euh, riboscal bi nga xam ne foofu laa demoon sànq dellusiwaat ku gel waaye damay delluwaat ribo yow est-ce que am nga fitu affronter mairie ribo bi ak lépp loo xam ne maa ngi koy dégg ci yaayaa ci njàmbaar ak dëgër fit est-ce que am nga fitu affronter mairie boobu noonu nekk riboscal. am naa ko bu baax a baax wàllu fit kenn du ci wax xaw sekk fit moo tax ma toog di wax ak yow nii xale bu ndaw la boo gisee ma gëm sama bopp ba élection législative candidat législative laa njëkk a def neuf commune la commune bu ne dama fa amoo responsable bon loolu gëm sama bopp bon dama xeeb commune de Ribot Escale commune de Ribot Escale sam papa da ko jiite ñaar fukki at def fa tiraanga joo xam ne lam fa leble tey pour ma jiite Rivo Escale loolu yomb la ci man yaaye ak nu mën a mel loolu période bii ñu toll booleeguma ko ci sama programme nu mën a mel laa wax de du ma la ko mën a waxee mooy dund ma ko quoi dund ma nu mën a mel rek man dund ma loolu maa ngi xool man sama yoon rek laay xool mooy fi ma bëgg a dem muy sama kanam loolu rek lay bàyyi xel mais gisuma sax ne yaaye mu ngi mel nenn quoi bàyyiwuma xel ci loolu ci moom. d'accord ba tey dañuy dellusiwaat fii euh, ci élection yi présidentielles yi dañu gis ne chaque fois jeunesse bi ñooy faral di def ay yëngu-yëngu comme coow yëpp ak coow yeeg ah bruit yeeg gis nañ ne chaque fois jeunesse bi la tey bu ma nekkoon boo nekkoon tey sama place lan ngay digal euh, jeunesse bi ci dal waaw li ma leen di digal muy jeunesse bi mooy ñu ànd ak dal ak yar te xam ne gune lépp lu ko yar mayul rek du ko am te gune su nekkee ak ay mag da leen di nangoo déglu te di leen dégle dégal mooy que ne koo gis maanaam mu bëgg ñu topp ko wala mu ñu topp ko rek dafa nangu woon a toppee bon li may wax SONES département de Koungheul mooy que ne nañ ànd ak dal ak yar te xam ne maanaam Sénégal gi ñun ñoo ko bokk ak ku fi mën a gañe it ba tey suñ président la ñun ñëpp Macky Sall la gañe suñ président moo gañe bu keneen gañee suñ président moo gañe bon xiiroo bee ngaayo bi ak yenn détails yi jaru ko quoi kenn ku ne am na loo gëm ci sa xol na ko jàpp bu bis baa nga dem ci mbañ ci ga dugg wooteel ku la neex delluwaat sa kër jàpp sa njàmbur bu ngoonee ñu jox la résultat yi ñu ne Macky Sall gañe na ñun ñëpp ñu kontaan man daal loolu ci wax daal ci li nga xam ne mu lay wax jeunesse de département de Koungheul d'accord jërëjëf yéen a ngi seetaan euh, sunu TV seen émission li ci dëkk bi jàkkaarloog euh, Soxna Awa Cissé waaye maa ngi dalaloon ki nga xamante ne moom mooy su Seck fii ci Koungheul gaax ñu fekk ko ci biir këram mu yombalal ñu lool nag liggéey bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax waaye lan ngay jox askan bi muy nekk sa dernier kàddu. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp aussi yéen maa ngi leen di sant yéen journaliste yi yéen ñi def déplacement ñëw fii sama gàll seet si ma. aw ma seen fay aussi di sant it honorable député Fanta Sall parce que dama doon def meeting nii mais foofu laa jógee ñëw te su ma paree fii damay delluwaat te loolu yëpp Macky Sall moo ñu ñor nan la ñuy def ba mu am deuxième tour bon daal askanu Koungheul departement Koungheul yi man maa ngi leen di gërëm parce que man awma xaar ma yàlla ak benn doomu sama place sama kër ak li ma ñor maa ngi ci di ci dox te boolewuma ci wax loolu daal vraiment bon maa ngi sant ñi nga xam ne ñooy samay dëkkandoo xaj na su su leen neexutoon du ma mel ni ma war a mel quoi mm. bon maa ngi maa ngi sant ñëpp képp ko xam ne ci département Koungheul nga dëkk maa ngi lay sant di la gërëm sama dernier moo daal mooy que ne li am solo mooy doomu aadama bu ne na nga gëm li nga gëm ci sa xol mm. bu bis baa nga waaxu wooteel ku la neex dëpp delluwaat sa kër jàpp sa njàmbur bu ngoonee su sa leader gañee nga siwile jàpp sa njàmbur xam ne Sénégal moo gañee comme ngi koy faral di waxee rek euh, c'est le Sénégal qui gagne kon nañu ànd ak dal yaru te ànd ak tekk ak tey ndax kenn ku ci mum kum ci munti doon nekk xa yaakaar naa ne tey jii fu ngeen nekk yéen ñëpp bëgg ngeen jàmm Sénégal xamuñu musiba jàmm la ñu xam comme jàmm jooju la xam ci la ñu euh, juddu ba màgg ba fekk suñuy maam euh, ñoom it ñu juddu ba màgg ba toll fi ñu war a toll ba ñun ñi nga xam ne ñooy sur seeni sët wala seeni doom ñëw kon nañuy gën a euh, fësal jàmm jooju ci suñu réew kon su Sekk ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, dinaa naan jërëjëf ci yombal bi ñu yombalal émission bi ku ne xam na ne guddi na waaye dañ la déranger nga ñëw jóge ci mitin ñëw daal ñuy dalal ci sa kër gi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi seetaan euh, sunu TV ñu leen di jox dig daje ci yeneen émission ak yeneen di politiciens kon jërë ngeen jëf peace and love jërë ngeen jëf merci.